asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ni ñu ko safoo di ko defee di leen dalal fii surla la chaîne leader Dakar People tey nag ñu seet seeti kilifa borom xam-xam bu kenn dul naatable Cheikh Ibrahima Diassé résultat borom jinne yi sëriñ bi nuyu nañ la. Euh, aouzubillahi min cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sallam gannaaw sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Dakar People ñu leen di fay bu baax di leen waxaane asalaamaaleykum di nuyu mboolem àdduna yëpp ñu ngi ziara mboolem koo xam ne ak nit fu mu mëntu nekk rek ñu ngi lay fekk fa nga nekk di la nuyu bu baax di la wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi lay fay sëriñ bi tey nag ñu seet la comme nuñ ko faral di ko defee pour am ak yow waxtaan. laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bari ci mbiru xam-xam question bu si njëkk rek sëriñ bi bëggoon nañu waxtaane mbirum seet sëriñ bi lan mooy dëggi-dëggi seet ana lan mooy maanaawu seet ana lan mooy njëriñu seet ci doomu aadama. waaw alhamdulilah njëriñu seet moom mooy li su xaara yi di ko wax li su wolof di ko wax seet loolu yëpp mooy koo xam ne xamut li muy def mu si mu di si laaj tegtal. mooy koo xam ne bëgg naa dugg ci mbir te xamul la muy dugg lan moo ko ciy fekk mooy koo xam ne réer na bëgg ku ko orienté laaj na tamit ku ko orienté parce que du xel rek doomu aadama ak xelam dafa tuuti waaye nag baatin mooy loo xam ne luñ la lu ñëwagul la moom lañ lay wax baatin moom ak zaahid nekkuñ benn ñii dañoo am xam-xami zaahid ñu am xam-xami baatin ku ci mel ni Moussa ak Xadir seen jëflante ak euh, la sa xadir wan ci wàllu baatin lu ñëwagut mm-hmm. waaye musaa dafa jàppoon ne li mu gis nii rek mooy mbir yi mm-hmm. kon nag mbiru baatin dafa nekk loo xam ne moo lënk doomu aadama mm-hmm. nit ki lépp lu muy dugg rek war naa xam ëllëg yan résultat moo siy tukkee bu demee ba réer tamit war naa laaj nan lay def ba nga xam ne mën na ci génn waaye wàllu seet moom daanaka dokkatu sax lu ñuy kii da toog léegi ñu wax la li nga xam ne mooy sa mooy sa mbir dootul ay fanaanook ay ñetti fa nag ay ñaari fan nag wax dëgg yàlla vingt quatre heures rek loolu dafa bëri loolu loolu moom dépassé nañ ko wax dëgg yàlla fi nga toog ngay toog ñu wax li nga xam ne mooy nekk ci yow yëpp te doomu aadama tamit lépp lu ñu la wax rek loolu mooy nekk ci yow loolu moom ñu ngi ci sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla mbiram yàlla la alhamdulilah. macha allah cheikh bi leeral yi am na solo trop xam naa tamit dañuy continuer rek laal foofu noonu ci mbirum seet bi parce que daanaka tey jii ku xam Cheikh Ibrahima Diassé xam ko ci mbirum seet jooni jooni tey jii lan moo tey tey cheikh bi lan la lamboo ba tey jii baanaka suñ gisee sëriñ yu bari bu ñuy seet dinañ la jëlal temps tey jii ku ñëw si Cheikh Ibrahim mu seetal la ci saas yi nga gis lim la wax. waaw yépp rek dañ koy sant yàlla rek parce que xam boo demee bay wut da nga wut loo xam ne tamit wax dëgg yàlla dafay leer si ñi nga xam ne ñoom nga koy jox waaye lambatu ak tàndale loolu léegi moom moo yàqu àdduna moo tax na ñu bëree bëri sax dañuy gis ne dañuy ñëw sax pour xool sëriñ bi ba xam ban méthode la am ban xam-xam la am ñu bëri sax dañ lay ñëw pour la pour xam ba xam yow yow a gars yi la tolloo wala waaye nag mbir mu nekk rek ka ci dugg kooku moo ci gën a xam dara waaye wàllu seen moom wax dëgg yàlla luñ la si wax tamit loolu du dañ nga toog tamit boo ñu joxee sa tur ak sa liñ lay laaj boo ñu ko joxee léegi léegi ñu wax la li nga nekk yëpp incha allah moo xam nga jógee sa kër war am fooy dem sax am lu ñu dikk si boo ñu laajee lu war a xew foofu dañ la ko wax boo demee tamit même chose loolu moo fi am wax dëgg moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax seet moom yàlla moo ñu si mooñaale ba nga xam tamit xëy na wa anal fadla bi yadillah yuti man yasa ngëne la daal yàlla moo ñu ko jox ba tax na lépp luñ la wax loolu dañ incha allah. macha allah cheikh bi leeralee am na solo trop xam naa bu ñu paree ci loolu tamit sëriñ bi bëggoon nañ nga laay ñu biir ci benn mbir boo xam ne dañ koy dégg te souvent jaamu yàlla dañ ci am jafe-jafe lan mooy rawxaan sëriñ bi. waaw rawxaan de mooy loo xam ne yàlla mbiram mi àddinaam bi dafa yaatu. bind na doomu aadama wax na ko ci alxuraan bind na jinne wax na ko si alxuraan bind na malaayka wax na ko si alxuraan yaa ngi dégg bind na awliyaahu yi nga xam ne tamit ay wëllu yàlla leen bind na ko ci kaw suuf waaye rawxaan ci baati baati baati arab mooy loo xam ne lu lu yéeme la ci wàllu kàttan seen dund dafa rëy seen tamit nàmp dafa mën a yàgg seen fan dafa mën a gudd waaye seen wërsëg tamit dafa yaatu ñoom yàlla sàkk na leen ñi nga xam ne ni tey lépp loo xam ne tën doomu aadama bi rek ci wàllu mission nga war koo dox léegi léegi ñoom ñoom ngay jëflanteet sa mbir gaaw bu baax. bëri na nit tey ñu ne sëriñ bi de dafa mën dara comme ñu bëri dañ leen wax ne ah ñu may tàgg ne ma nangam mais nag du loolu parce que ñi may jëflante la rek ñooñu seen mbir amul amul teggi tànk lépp lu ñu la wax loolu mooy loolu mooy am ci yow buñ fekkee rab si jëmm dañ koy génnee buñ fekkee jigéen boo xam ne dafa taxaw ci wàllu rab ba nga xam ne téye na ko ba mën a am doom dañ koy génne fekkee góor goo xam ne mëntu am jëkkër dañ koy génne mu jàpp la sa ataam mu jàpp la ba nga xam ne sa yaram bi dafay feebar ba ñu ñu bëree bëri tamit dañ leen di dañ leen di euh, rab bi daf leen di jàpp ba nga xam ne duñ wér dañuy tëdd ay at di fayu si hôpital yi loolu tamit rab da koy def kon nag yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne nit ki mën naa ñàkk xam waaye bu amul ko ko ci dimbale rek mën naa réer te tamit rab bi mën naa dem ba solo ko ba dépassé sax wàllu moom waaye mën na ñëwaat tamit si wàllu njabootam loolu nag kon nag loolu moom dafa nekk loo xam ne baax na nit ko xam ko mm-hmm. waaye ne nit ki mënoo koo dindil mukk tamit loolu ne da nga am ñoo xam ne da ngay jëflante ak ñoom mm-hmm. parce que rab moom da koy dindi si lu gaaw benn fan ñetti fan gën saa bëri mm-hmm. mboolem loo xam ne rab la ci yow dañ koy génne ñetti fan moo gën a bëri si rab ñu génnee ko ba set ak foo mënti nekk ci àddina bi si ñett fan lay diire ñu génnee la ko ba nga xam ne sa yaram bi lépp lu mu doon sentir si wàllu jafe wala sa wàllu sa diggante ak góor wala wàllu bu fekkee jigéen boo xam ne mëntu am doom loolu moom dañ koy dékkante ci lu gaaw parce léegi yu bëree bëri ëmb yi taxaw yi jigéen ñi amatuñ doom seen doom yi gaaw naa règle yi gaaw naa yooyu yëpp dafa am te lu bëri rab da koy def lu bari tamit wax dëgg yàlla seen biir yi dem nañ ba nga xam ne pour nit ki am doom jafe-jafe te àdduna bu demee ba nit ñi wàññeeku su boobaa àdduna dafay xaw a doy waar parce que nit ñi doomu aadama yi ak nit ñi ñoo fi nekk kon nag nit ñi toujours dañuy war di judd baax kon nag damay préféré foofu tamit di waxaat ne leen góor ñi nga xam ne tey wax dëgg yàlla yàlla dimbale neen seen doole ji dafa néew trop tey góor ñu bëri tey ndeysaan mëntuñuy seq ak seen i soxna yi ba tax na kër yi bëri tey mu ngi tas lu tax mooy wàllu rab daf ciy joué waaye tamit wàllu feebar daf ciy joué te loolu tamit wax dëgg yàlla góor gu ci demee ba dem na ba yëgatul boppam tey ah àdduna bi kooku àddunaam tukki na àddunaam tukki na de kon na dem defaru bu baax a baax wax dëgg yàlla am na ci yoo xam ne si benn fan lañ koy faj macha allah sax daanaka ci foofu noonu foofu noonu nga terminé si foofu noonu sax lañ bëggoon ñëw parce que daanaka mbirum xaan mbirum rab mbirum jinne mekk na li nga xam ne dafa yaatoo yaatu ba dina laal ay point yu bëri bëri ba si mel ni dina jàpp jigéen jii mu taxawal dina affecté góor tamit tey jii mu doon néew kattan te tey jii ku xam Cheikh Ibrahima Diassé xam ko ci mbir yu nu mel daanaka xataa ay doomi aadama yu bëree baree baree baree tey yaa ngi leen di dimbali ci fànn yu nu mel da muy jigéen yi nga xam ne dañ taxawal muy góor yi nga xam ne tey dañu néew kattan waaw loolu yëpp sant yàlla la rek parce que dëgg yàlla sama sama sama liggéey léegi-léeg nga gis koo xam ne sa yaram sax dafay daw ci moom parce que gis naa ñu bëri ñoo dañuy toog ay fukki at nangam di faju loo xam ne si benn fan lañ koy faj nga gis ñoo xam ne dañuy faj juróomi at si benn fan benn fan wala gën saa bëri ñetti fan kon nag ñooñu tey wax dëgg yàlla foo ñu dimbale leen bu baax dañoo def ba sonn làmmatu neen ba sonn ndeysaan waaye nag mbir yi dafa am buntu dafa am yoon te loolu lu koy may mooy xam-xam boo xam ne bu wér lay doon ak pas-pas mooy yitte doomu aadama yi kon nag loolu moom ñu ngi ciy dimbale jaamu yàlla bu baax jigéen boo xam ne mënoo am doom loolu dañ koy dékkante si ñetti fan si si gën saa bëri góor goo xamante ne dafa néew kàttan loolu moom dëgg yàlla xale yu ne si bunti bi sax ñoom daanaka moo ëpp parce que jot amut ñoom ñooy ëpp ñuy faj yu mel noonu waaye ñun sax côté boobu duñ si mais benn fan benn fan rek bu ñu la ko joxee nga gis sa bopp léegi bu fekkee tongoon ak nangam ci at boo xam ne mënoo seex ak sa soxna sa bu ñu la ko joxee journée bi balaa 24 heures nga yëg bopp te du loo xam ne da koy jëfandikoo subaa nga jëfandikuwaat beneen déedéet ba min zaman fee yaa ngi dund si àdduna rek day gën a day gën a fort day mel ni xale boo xam ne dafa jutuwaat te loolu moom wax dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax parce que mu ngi garab yaa ngi dem fu nekk ci àdduna ku ko werante nag alhamdulilah ñu jox la nga essayé nga xool ba xam macha allah. macha allah daanaka leeral yi am na solo trop mais sëriñ bi lan mooy secret wu Cheikh Ibrahima Diassé daanaka. daanaka dàkkantal bi bëri na fépp ci àdduna wëngal këpp Cheikh Ibrahim Diass résultat résultat résultat tey jii lan mooy maanaa yi nga xam ne cheikh bi tey jii moom la làmbal làmboo ba tey jii xataa ba tey jii gars yëpp askan wi àdduna fépp ñu koy dàkkantalee résultat résultat résultat. waaye loolu mooy sëriñ sëriñ bu fekkee mën a am résultat demal nga jaay leneen wala nga am bu amee métier nga dem nekk ci loolu waaye bu fekkee mën a am résultat demal nga toog man ma liggéey moom résultat rek du noppalu mukk nag lu dul nikki lim soxla si man moom da ko am muy résultat ak fu mu ko mëntu jëlee tamit moom da koy am ba tax na tey wax dëgg yàlla ñu ngi sant ma suñu jëflante nit même su may déggante nit koo xam ne waruma koo faj sax damay gis ne dafay yoqot dafay du am cawarte ci lu muy def lu tax mooy xam naa ne kii nar ma koo faj waaye képp ku ma nar a jëflante rek képp ku xam ne jëflante na man ak yow rek man gëm naa ne yow da nga saf aajo dana fajoo ci man man ku ajam nattu fajoo ci man daal du ma boole moom loolu moom loolu moom dama koy wax waxaat ko képp di waxtaan ñun amuñ joti waxtaan amuñ joti joti tamit wax dëgg yàlla defoon naa nangam nit ñi nekkuñ benn kon taalibe bi loolu foo ñu bàyyi si xel bu baax parce que bu dee dangaa ngaa wóoru nit ki di jëflante ak moom da nga koy wóolu man naa la képp koo xam ne yaa ngi am sikki sàkk si man toogal bul jëflante ak man waaye képp koo xam ne yàlla baaxal nga jëflante ak man tamit wallahi tallaay li nga bëgg dana ko am si kàttanu yàlla nag ñu ñun ñoo koy def waaye mbir yi dafa am yoon xam-xam la rek ak yitte te ñun tamit ñu ñuy ñoo ñu seen mbir xamul jàdd yoon si yoon nag lañ lay teg incha allah waaw ba tax na tamit si euh, beneen côté damay profité bu baax parce que tamit nit ñi jaamu yàlla yi sonn neen wax dëgg yàlla sonn neen bu baax nit ñi ñàkk neen nit ñi feebar neen nit ñi seen jafe-jafe kenn mënu laa wax ni mu toll lu tax mooy dañoo wër ba sonn waaye yàlla toujours mu ngi indi loo xam ne dafay dimbale jaamu yàlla yi bu baax a baax a baax si côté yëpp nag yàlla du noppi mukk lu du jaam bi dafay fekk lu lu métti parce que corona bi ñëw na liggéey yu bëri doxatul waaye doomu adama toujours mën na mën a am amin boo xam ne amin bu gaaw lay doon waaye bu tegu ci yoon lay doon waaye lépp loo xam ne ni doomu aadama yi jiital na ko ci dox jéego rek yàlla jox ko wërsëg yàlla tamit def na ko ci baatin la nga xam ne nit ki dana ñëw léegi léegi léegi fii ak ñetti weer wala ñaari weer gën saa bëri ñu déggale ci millionnaire wala milliardaire ci lu gaaw loolu moom ak bunt yëpp naka ci am kenn ku ci nekk boo ñëwee dañ xool ba xam ban buntu moo gën a gaaw ci yow waaye amin bu gaaw moom wax dëgg yàlla loolu baatin moo xam moo moo ci gën a gaaw sax si liggéey wax dëgg yàlla alhamdulilah. macha allah cheikh bi leeral yi am na solo trop daanaka waxtaan bi mu ngi bëgg a gudd may des na yeneen point yoo xam ne tey jii bëgg nañ ko laal parce que daanaka gis nañ ni jamono ju nekk denk na jamono ju doy waar jamono joo xam ne jamono def-def la donc nit ku nekk rek saa boo xëyee war nga mun a am loo xam ne tey jii dina nekk loo xam ne daf lay sëriñ bi lan mooy njëriñal kaaraange ci doomu aadama. waaw dëgg la kaaraange moom am na ci sunguf yoo xam ne sunguf junne la. ñu ci dox tuuti lum tuuti tuuti képp ku la laal day yàqu day dee ci gàttal te lépp loo jublu tamit danga ci jot nit ñi dañ la bëgg ba duñu am sago ci yow duñ ci joxe nag lu bëri duñ ci jox tamit nit ñu bëri waaye tuuti leen ciy joxe waaye mën naa la wax ne képp kuñ ko jox jaru ngay def dara jëlal sunguf bi junni boobu noonu xam ne junni moo fa tëdd lépp loo xam ne ni li nit di wut la ci wàllu protection am na ci am na tamit ñu ñuy liggéey si wàllu rab yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci wàllu xaalam bi yooyu tamit moom amul baal am na ci ndomb am na ci ay jaaru ñaari côté yëpp dafa am nit ki ku bëgg am jàmm yow yaa koy bàyyi rek soo ko bàyyiwul nag lépp loola ci fekk say mbokk moom si woo xam ne moom ñi xam ne yow moom yow moom sa àdduna moom tukki na parce que nit ñi dañoo daw ba sonn dañoo moytu ba sonn kon nag dafa jot ñu sécurité seen bopp ba nga xam ni tey wax dëgg yàlla dafa métti daal waaye nag alxuraan bàyyiwul dara am na si yoo xamante ni si wàllu zulmaaniye mooy wàllu gàllaj gu ñuul tuuti tamit du la baal kon daal nit ñi ñu am jàmm nañ bàyyi nit ñi seen jàmm suñ ko deful nag ah wax dëgg yàlla tamit lépp lu ñuy jëflante ak ñoom dana métti si ñoom am na si yoo xam ne wàllu bayre la am na si yoo xam ne ci wàllu suuf bàmmeel boo xam ne ni ko wëli yàlla moo fa tëdd kooku duñ ko defal nit ñetti fan mukk lu dul nit ki ak problème bu mëntu am ak jëkkëram ci ñetti fan lay diire mu nekkaat ci jàmm ak tamit problème bi nga xam ne wër nga ko ci jigéen pour sonn wala koo xam ne dafa am xaalis nga bëgg a jëflante ak moom ci wàllu baatin boo ko defee boo xëyee suba lépp loo xam ne yaa ngi koy laaj ci moom yàlla dal ko koy yombal kon toujours rek yàlla mu ngi jëmbale jaam yi ci ay buntu yoo xam ne ni tey buntu am am la waaye nag nit ñi seen yitte rek ak ñi nga xam ne ñoo leen ko mën a defal ci wàllu tamit fexe mboolem mi ñàkk yi mboolem feebar yi mboolem tawat yi tawati xol yeeg tawati jëmm yëpp lu ci nekk rek yàlla wàcce ne di nga xam ne moo koy saafara wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma kon nag loolu alquran loolu moo ko tax a jóg loolu nag sant yàlla bu baax bañ a guddoo rek moo tax waaye nag képp koo xam ne soxla nga ci yooyu rek buñ jëflantee si fan yi ma lay wax nii si yooyu ngay gisee li nga wax li ma la wax incha allah macha allah cheikh bi leeral li am na solo trop daanaka waxtaan bi mu ngi bëgg a gudd mais daanaka tey jii képp ku xam Cheikh Ibrahim Diassé xam ko ci wàllum tasxiir noob Cheikh Ibrahim Diassé est-ce que tamit mun nañ nga ñëwal ñii si njëriñal tasxiir daanaka sax waxoon nga ni dootoo waxati si biirum tasxiir parce que xattaa tey jii suñu borom daf la ci may loxo bu gudd a gudd gudd ba tey jii daanaka sax yow sax tey jii ku la seet sax daanaka danga koy booleeg sa ndaw yi tamit tey jii ñoom tamit may suñ borom may leen si ay maanaa yu baree bari est-ce tamit mun nga ñu laaye biir tamit avant tout liggéey bi hormis liggéey mooy njëriñal tasxiir tamit lan mooy njëriñal tasxiir. waaw tasxiir comme li ma la wax rek parce que tamit liggéey yu bëri sax ñun du ñu faral di ko def ñu bari ñu bëri xale yi ñoo koy def tey jii mën naa wax benn xale rek tey ki ñuy bàkk tey si wàllu asraar xale bi gën a ndaw fii du morom moom si wàllu asraar loolu yàlla def na ci taw tawfeex bu baax ci wàllu nopp nee naa la du loo xam ne li ñuy toog tamit ay fan yu bëri toog nee naa la waaw léegi dana la woo wala nangam déedéet yooyu dafa sori wàllu nopp ci diggante laxza yu gàtt lañ koy def dañ koy tënk pare ak ni ak li ngeen mënta jotee moom moo lay wër deneen nopp nit deneen nopp kër deneen nopp entreprise deneen ataa dëkk sax dañ ko nopp nopp dafa am noot dafa am nopp mooy ñaar ñuy bëggante noot nag mooy ki nga xam ne tey da am loo bëgg ci moom ci wàllu mbëggeel wala ci wàllu alal ju jógee ci moom ñëw ci yow loolu mooy noot loolu yëpp am na ñaari bunt yoo xam ne yu ci gaaw la yoo xam ne tey léegi léegi lañ la koy defal li nga bëgg ak ki nga ko mën a bëggantee loolu dafay sotti loolu amul duñ ci toog ci di wax parce que wax dëgg yàlla temps bi guddul te tamit dañuy tënk rek xeeru kàllaama xalla wa dañ koy gàttal rek su ko defee ñi déglu tamit ñooñu ñoo après dañ leen ci leeralal yu bëree bëri incha allah. macha allah cheikh bi waxtaan bi am na solo trop mais daanaka waxtu dafa nekk li nga xam ne daf ñu tënk xam naa dañuy ñëw bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokki internet yi cheikh bi lan ngay tàggoo ana lan ngay dégg askan wi. waaw di sant yàlla bu baax rek di wax ne vidéo bi dañ ko def ngir laajee jàmm yàlla yi parce que wax dëgg yàlla tamit du ne dañuy publicité suñu bopp dëgg yàlla xam-xam mooy publicité boppam te yaakaar naa ne duñ toog ci mukk di ci wax ci yoo xam ne tamit nekkul loo xam ne day des parce que nit ñi nañ ragal yàlla bu baax nañu wuti xam-xam nañ jàng waaye neen ragal yàlla parce que yàlla boo ko ragalee rek mu xamal la yàlla nee na ragal leen yàlla yàlla xamal leen waaye ragal leen yàlla tamit yàlla wërsëgal leen kon doomu aadama lépp li muy wut rek ci ragal yàlla la ko aj bu fekkee ne liñ lay sant mënoo ko neel mënuma ko parce nisfu ilmu laa adiri ma genn wàllu xam-xam mooy xaw ma ko bu fekkee ne xamoo ko na nga dem si ki nga xam ne moo la gën a xam mu mu dimbale la ci loolu waaye nit mënul xam lépp ci àdduna kon nag ragal yàlla il faut mu am si mboolem loo xam ne nit ñi ñu ngi ciy yëngatu bu baax wax dëgg yàlla suñu yi passé dañoo gis ay nit ñu sonn lool waxoon naa ko dëgg-dëgg ñoo xam ne dañoo sonn trop waaye képp koo xam ne jëflante na ak ñoom ci diggante boobu rek wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi sant yàlla bu baax si gis bi nga xam ne yàlla boole na ak ñoom parce que nit ku sonn nga dimbale ko loolu tiyaabu bu rëy a rëy la loolu nag dañ leen koy santé bu baax parce que bu fekkoon ne loolu taxut kon dañuy làqatu suñu roq rek nekk suñu xaloo nekk ci jàmm yàlla parce que bu ñu xëyee rek ni ñuy recevoir ci nit mënuñ ko attan waaye nag am na ñoo xam ne dañoo nekk si pegg yi am problème ñooñu ñoo tax ñuy wax kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu ngi ñaanal ñëpp yiw képp koo xam ne fa nga nekk rek yal na yàlla fekk la fa ak jàmm ju bëri ak xéwal ak wasak yaar bi képp ku ñàkk rek yal na yàlla tëbbal la ci wërsëgam gi nga xam ne moo koy jox ku ko neex képp koo xam ne ko feebar la tamit koo xam ne mëntu am doom ku bugg jëkkër yëpp xaajo boo am rek te nattu fa yow ci ñun ah ñun ñu ngi ñaan yàlla yal na bu ñu yàlla boole yow waaye képp ku ñu boole ak ñun tamit képp ku takkoontoo ak ñun amul sikk sàkkane li nga bëgg dana ko am waaqidu daxmaana alhamdulilahi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.